il cinq jours def nga une sortie mm. pour euh, faire la leçon à Ousmane Sonko mm. sur la problématique de la cohésion euh, nationale li waral sorti boobu moom mooy la rencontre du F24 à la place de la nation mm. euh, nga yéegaat ñu hué la c'est devenu euh, une euh, une tradition <laughs> ah, au mois de décembre déjà defoon nañu defoon nañu la ko à l'époque waxoon nga ne sax ya a eu une tentative d'assassinat une agression physique à l'époque euh, vous n'avez pas été aussi virulent euh, qu'il y trois jours mais vous lui aviez fait la leçon euh, également alors ñenn ñi bi ngay def sa entre en politique euh, jàppoon nañu ne yow ak Ousmane Sonko di ngeen déggoo di ngeen am des point de convergence parce que bi ngay nekk TFM euh, am na gis-gis boo amoon euh, ci action am euh, lan moo yàq seen relation ba tey yow ak Bougane Gueye Dany ngeen bokk ci ci ci les punching ball préférés de aw ma benn aw ma benn problème ak Ousmane Sonko aw ma benn problème ak Pastef lenn ci waa Pastef j'ai j'ai de bons amis à Pastef ah am naa fa ay xarit am naa fa ñoo xamante ni li ngay wax sama sortie bi ngay wax nit ñu ci bari ils m'appellent ils sont en phase avec moi ils sont d'accord avec moi. non say xarit la ñu bari bari naa fa. non bari naa fa xarit bari woon nga fa soppee loolu sax xawma ko. Ah, xam nga man Sénégal xam nga man mii man mii nekk ci biti maa la ko wax dama dem élection ah. may mun a. cinquante six mille sénégalais ñoo ñu voté cinquante six mille trois cent trois sénégalais dinañ si dellusiwaat ci conditions yi ma demee élection su fekkee ne permettre nga cinquante six mille donc Pastef ñoom Ousmane sonk ak coalition Yewwi la ñu voteel xam nga soo amee xarit da lay voteel <laughs> bu dee gëm na sa sa li ngay wax donc moo tax ma ne ñooñu nga tuddee ay xarit wala ay sympathisants mën na nekk li ma gëm mooy mënuñu ma bañ waruñu ma bañ defuma ci réew mi luy tax ñu bañ ma waxuma ci réew mi luy tax ñu bañ ma képp ku ma xam ci teggin nga ma xam ci yittee nga ma xam ci bëgg xam-xam. mais question bi fan la jógee. mais loolu loolu ñoom seen koo ci am ci plateau bi nga laaj leen ko. man sama responsabilité non mais yow ci sa ci sa angle. d'analyse déggoo moo tax ma ne. moo tax ma ne lenn moo tax ma ne lenn lenn lenn. xëy na ci ñoo xamante ni jàpp nañ ne man bi ma jógee di politique dama waroon a dem nekk ci ginnaaw Ousmane alors que loolu mosuma ko xalaat mosuma ko bëgg mosuma jàpp ne tamit man sama gis-gis ci wàllu politique ak espace politique sénégalais ma observé ko gis li ci xew. gis li mu leen jaral les acteurs politiques gis ne jaral na leen sax ñu jël ndaw ñi jëfandikoo leen ba ay nit dee ci de part et d'autre laa wax bi may condamné waroon nga génnewaat sama vidéo yi nga xam damay condamné les violences yi nga xamante ni dama daan gis ay ñaari camp yaa ngi fàttaliku bi waa COJER di reyante fii ci seen ci seen siège bi boobu position boobu laa ci amoon musuma nangu ko jëfandikoo les jeunes à des fins politiques comme Cheikh Akano ci loolu nekk ba tey c'est-à-dire que ñenn ci ñoom ñoo xamante ni ñoom jàpp nañ ne bi ma déclaré suma candidature dama waroon ranger wu xëy na ci ginnaawam te gisuma lu tax ma war ko def gisuma ko donc loolu moo tax man bi may dem élection dama dem comme indépendant. ñi ñu voteel ñëpp ñi ñu voteel jiitu ci néeg bu lëndëm moo la naan toogal fii xaw ma ndax noonu la. ban néeg bu lëndëm man néeg bi ma dugg dafa leer de. <laughs> néegu Sénégal laa dugg te dafa leer nañ ñu ci man xam nga man ku la jiitu ci lëndëm moo lay won fi ngay toog. déedéet xam nga tey jii su ma gisoon rek. ci espace politique euh, foo xamante ni bi ma jógee épousé na su suma vision à cent pour cent ak sama gis-gis ci réew mi ak le rapport que j'ai au pays ak par rapport à son histoire par rapport à sa géographie kon du ma fi nekk di sonn naan damay taxawal leneen te nit ñi nit ñi jox ñu gis nga Maïmouna on a déclaré notre candidature à trois mois des élections c'était pas évident j'étais le plus jeune candidat qui dirigeait une liste sur les huit je n'avais pas de moyens j'avais investi que sur huit départements j'ai fait campagne que sur vingt-deux commune sur vingt-deux communes sur huit départements awma awma woon la possibilité de malgré ça cinquante six mille trois cent trois personnes yóbbu ñu 56 303 yooyu ñu voté mais dañoo xëy romb fa benn bokk. alors waaw may euh, ma booy booy insister ci sa 56 300. Euh, waaw dama bëgg li ma bëgg a wax mooy. li ma bëgg a wax mooy lu tax ngay insister ci sa 56 li tax ma ciy insister mooy. bu doon benn nit rek moo ñu wóolu. non waxuma loolu lu tax nga ci. insister waaw loolu laay tontu ni ah est-ce que est-ce que nekkoo di teg un élément de comparaison parce que Ousmane Sonko il est allé à l'Assemblée nationale euh, grâce à la loi du du du, du plus fort euh, reste trente mille euh, trente sept mille voix avec une coalition euh, yow nga ne cinquante six mille est-ce que loolu ngay da ngay bëgg a wan ne yow sa première participation yaa ëpp légitimité. li ma ci jubloo wane sax euh, du loolu même bu fekkee ne élément de comparaison la mais li ma ci jubloo wane mooy sénégalais yi nangu bi ñu nangu ak gàttandu bi ñu gàttandu suñu candidature te gis nga booba ak léegi euh, liggéey bi dox na dox boo xamante ñu daf ñu impressionné ci temps bu gàtt c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes en sur quatre cent communes près de quatre cent communes de présence effective sur les cinq cent cinquante sept nous sommes dans quarante et un départements 41 départements sur les 46 en un temps record aujourd'hui nous avons 13 représentations dans la diaspora dans des zones différentes. Alors, donc Sénégalais yu bëri. waaw ah. quand tu as annoncé ton intention d'entrer en politique des gens de Yewwi ñu la doon xaar. Hmm. ils ont été frustrés. mais li tax ñu ma doon xaar. waaw ñu ngi la doon xaar non parce que yow euh, voilà yéen ak ñoom. lan moo tax waa wallu nag lan moo tax wallu xaaruñu ma. xam nga journaliste souvent dañuy am parfois kii euh, feeling opposition un peu. voilà les les idées que l'on défend euh, dafay xaw a méngoo parfois xam nga l'opposition moom elle est toujours elle est très souvent noble. voilà opposition bi moom mooy yor euh, les moom mooy défendre les les les les les idées nobles. Hmm. Euh, moom mooy nekk idéaliste donc ñoom ñu ngi la doon xaar. Hmm. donc bi nga xàlle sa langue ils étaient déçus. Hmm. man quand tu as déclaré ta candidature je m'attendais à ce que tu ailles te ranger. Euh, pour man da ngay dem ci waa ci waa Yewwi la nga doon wax ca plateau jàkkaarloo ba. xëy na loolu nga gis ne am na ñu épouser valeurs yooyu donc y une première déception. et foofu la mbir yi commencé mais c'était pas aussi violent euh, que léegi nga xam ne voilà vous êtes devenu ennemi mais, public mais, numéro mais, un Maïmouna on a vécu tout durant cette campagne vivre nañ dénigrement sosal nañ ñu nee nañ Samba nekk ci ginnaawam wala Demba nekk ci ginnaawam parce que Sénégal gëmatuñu ndaw boo xamante ni dafay jóg am yitte di dox mbiram jóg ñu ne yow mii sax nee nañ diw a nekk sa ginnaaw wala diw nekkul sa ginnaaw du dëgg mhm. dëgg la wala du dëgg mhm. donc ku jóg ñu ne am na ku nekk Sénégal gëmuñu ndaw gëmuñu ndaw bu jóg jigéen la ñu gën a ñàkk a gëm nag voilà donc ñun bi ñu ah, jógee assumé suñu taxawaay ku ne tuddal nañ ñu ko ne ñu te ñeen ñu ko doon tuddal mais ñun ak ñoom ñoo nekk ci biir opposition bi ñun nag ñoom ñoo nekk ci biir opposition bi lu bari teggin daf ñu dul ñu ko may lu bari bëgg a mel parce que tamit gis naa ne politique Sénégal soo ci duggee dafa mel ni dafa am ñoo xam seen objectif mooy wane na ñëpp a yem moom mooy seen objectif dinañ la woo ci terrain boo xamante ni wax yu ñàkk teggin la dinañ la woo ci terrain boo xamante ni euh, jëf yu ñàkk teggin la ñun on est resté solide ci suñu position daal dina ñun Sénégal moo ñu intéressé te Sénégal rek la ñuy waxtaanee du ñu waxtaanee ma sàmba duñu ñu waxtaanee ma demba donc on est on est on est euh, ci taxawaay boobu moom la ñu am ba tey te gisuñu lenn loo xamante ni mën nañu ci jëlee malgré xupp wala xëpp. nee naa la bu fekkoon ne may euh, Maymuna bu hmm. fekkoon ne wut am koom wala wut alal rek wala wut ay terrain comme ni mu xewee nii gis nga notification yi ñu génn ci internet. Hmm. xam nga kenn mënu cee gis suñu yaa ngi dégg. Hmm. notification yi ñu génn ci internet bi kenn mënu cee gis suñu tur te pourtant bés jot na ba tàyyi ñu bëgg jox xëy na lu mel noonu pour ñu waxal nit waxal ma sàmba wala ñu waxal ma Demba mosuma ko nangu. mësuma nangu ci prise de parole bu may def en public ma leble ci walla ma fay ci bor mësuma ci nangu jël ci loo xamante ni lewut lu lew laa mës a bëgg a dunde moom lay dunde ba tey te lu ne tuumaal nañ ñu ko am na ñu ne Macky Sall moom moo nekk ci suñu ginnaaw daal ne ku dul intercoalition Yewwi ak Wallu Macky la nekk ci suñu ginnaaw te du woon dëgg kon kay bul wax ne léegi la affaire yi tàndu yàgg na. xëy na waaw mais waaw mais Pape euh, est que dafoo erreur bi ñenn ñi di di di def xam nga quand tu as euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk sur les réseaux sociaux nekk des militants de Pastef voilà ils ont sonné la charge parce que ñoom jàpp nañ ne da nga waroon ñëw euh, ci ginnaaw Ousmane Sonko mais est-ce que yow dafoo erreur tamit euh, en confondant ñooñu li ñu doon wax ak peut-être les réelles intentions de Ousmane Sonko parce que man man mësuma xool naa xool mais mësuma dégg une attaque frontale directe boo xam ne Ousmane Sonko def na ko envers toi et man j'ai dénombré quelques attaques yoo xam ne personnelles ciblées que tu as que tu as faites euh, contre lui Maïmouna en fait kan moo wax ne ku dul intercoalition Yewwi ak Wallu Macky Sall moo nekk sa ginnaaw Ousmane moo ko wax depuis depuis Touba waaw mais mais mais ci la bokk so so non mais non mais xam nga soxlawul xam nga ñun ay borom xel lañ tamit tudd la non soxlawul ñu may tudd man déggoo dama ne la man du ma tooñ Sénégal nag xamuñu ko tooñ yenn saa yi ku fayu la ñuy wala ma alerte man sax bu may tudd nit damay alerter wala may artu moo tax ma ne franchement aw ma problème ak Ousmane Sonko. mais si xam nga xam nga quand tu dis on ne peut pas prétendre être une solution pour le pays et devenir un problème mooy. lendemain mais est-ce que dama tudd nit lendemain. la ba ñu la ba ñu la attaqué. mais est-ce que dama tudd nit nga poursuivre nga ne. ces acteurs qui se croient déjà au top niveau en politique doivent apprendre encore. C'est pourquoi euh, qu'il est obligatoire de procéder à une formation euh, dans les partis politiques. On ne doit pas éduquer les militants dans la haine de l'autre, le rejet du discrédit sur nos guides religieux, que personne ne fasse croire aux jeunes que pour obtenir le pouvoir, il faut les inciter dans la violence. xam nga man wolof laa doon wax jour boobu. 30 ah. décembre dañ ko traduire non dama ne. xam nga wolof laa doon wax dañ ko traduire qui traduit trahit waxewuma ko nii waaye li ma doon junj en substance. mais wax ji dafa leer de. non dama ne non may mun a wa tudduma tur. dama ne ah. tudduma tur dama ne képp ku jóg di def politique. war ngaa góorgóorlu ci sa bopp ak sa ñoñ ba nekk solution parce que da nga war a da nga a dem régler problème mu sénégalais yi koo xamante ni problème la mënoo nekk solution pour sénégalais yi loolu je le réaffirme loolu mën maa ko wax. yaa ngi dégg donc loolu euh, ñëpp ñiy def ci politique y compris moi-même dama ne képp ku jóg di def politique war ngaa góorgóorlu ci sa bopp ba nekk solution gis nga ba ci. xam nga ba ci sama kuréelu politique. xam nga xam nga nag c'est le message et subliminal xam nga à partir du moment où tu solution. xam moo fi def livre solution. ah non may mun a non may mun a loolu nag may ah? nga wax bi da ko enrobé. non non bi nga ko waxee ñu bari jàpp nañ ne moom ngay waxal. waaw mais mais léegi danga bëgg dëgg dégg-dëgg. Mhm. politique képp kuy jóg di def politique y compris moi-même moo taxoon may wax wax jooju ah, loolu leer na. mais sa dernière sortie bi. waaw da nga précis. dama. da nga da nga précis. dama doon artu boobu. ci say li ma dégg da nga ci say accusation non première sorti bi première bon à bi mu amee dafa metti ñu bari mérité woo woon loolu dafa woon dara lu waroon tax nga dem place de la nation di manifester lu la naxari ci gestion euh, Covid ak rapport Covid euh, de des comptes ñu lay yuuxu di la bëmax mbaa di la di la di la. di la di la di la jéem a di la jéem a xokkatal mais munoon nga boo noppi woon xëy na di nga di nga ëpp sympathie mais deux jours après da nga exagérer affaire bi Euh, voilà gonfler euh, les les les traits euh, mu mel ni. mais mu mel ni da nga tenir non non xaaral xaaral rek. xaaral rek en fait c'est dangereux en fait. li non non non mais si. non parce que boo waxee non boo waxee non boo waxee tentative d'assassinat. Maïmouna je vais porter plainte on a voulu me tuer Maïmouna ah le lendemain alors que nous on a regardé la télé ce qui s'est passé c'est ignoble ce n'est pas normal. mais quand même euh, Pape mais mu ne damay def précision en fait mhm. li ngay wax nii c'est très grave gis nga chauffeur bi ma doon dawalal daf ci jële daf ci jële traumatisme ki ma àndaloon am na keneen ku ma àndaloon ci suma collaboratrice sama benn collaboratrice daanaka daf ci jëlee xaw na ci feebar wala feebar na ci. mais lan lan la lan la ñu def waaw mais déglu déglu rek ma la déglu xam nga man maa fa nekkoon man maa ko dund man maay témoin bul fàtte ne journaliste la observateur la man maa ko dund cest à que boo nee dañu exagéré yow du woon yow du woon sa rakk bu doon yow wala sa rakk doo waxee noonu man li ma dund keroog man maa ko xam li ma gis keroog man maa ko xam li ma dégg keroog man maa ko xam des choses innommables c'est-à-dire que boo ko boo ko simplifier rek man ça ma fait peur en fait c'est-à-dire da nga banaliser loo xamante ni c'est extrêmement grave non. et dangereux beneen bi non déglul parce que boo nee exagération wala gonfler à la liberté, Maïmouna, c'est très dangereux Maïmouna man du ma exagérer du ma gonfler du wax lu ma xamut su amuloon du ma ko wax mukk ci àdduna mais tentative d'assassinat mais gis naa ñoo xamante ni keroog. mais dañu mais dañu ma tiim di dóor gis dañu sama oto dañu toj vitre yi. di dóor di xëcc bunt yi yor arme blanche loo bëgg mais ñooñu buñ ñu jotoon ci man kenn waxatu ko. bi may wàcc bi may bi may bi may wàcc. keroog an sa moromu leader ya fa mais moo tax ma ne xamoo li xew. danga may bàyyi ma expliquer la. parce que keroog bi ma génnee dañu ma topp ci sama oto sama oto daw avec les travaux du BRT ñu dugg dans un engrenage boo xamante dañ ko bloqué mais li gën a garaaw waxuma la sax nga yuuxu nit xam nga tey jii mën nañu am divergence man ak yow mais au moins bàyyi ma ma wax quelles que soient nos mais du ma ko déglu dama ko yuuxu loolu loolu ba tey amul solo mais li gën a garaaw mooy topp nit ki di sànni xeer ci otoom am na ñu nekkoon keroog ci garde rapproché bi duñ sax sama garde rapproché bi may wàcc strat bi dañ ne ma waxuma waxuma bii mujj nii décembre laa wax dañ ne ma taf dama dafa ma jox benn kii mu ne ma na ko taf sa bi may wàcc daanaka xaw ma pompe à gaz xaw ma lan lañ ma sànni man du ma waxantu am na ci loo xamante ni duma ko fooye gis nga sama digganteeg sama borom may mun a ñaanuma suñ borom dara yàqal ma ko te am na ci loo xamante ni àdduna jaraluma ko àdduna ak li ci biiram jaraluma ko rawatina ngay wax loo xamante ni danga koy jël di ko teg ci nit kenn mësuma jël à défaut fekk ma may jël nit mais li ma liggéey bi ma doon def dafa sensible mooy liggéey bi ngay def nii chaque jour ajjuma bu jot nga ñëw toog di wax ñi ma xam yëpp xam nañ ne duma bëgguma sax di tudd ay nit je parle des faits wala des principes donc ci loolu laa nekk ba tey te loolu laa duggee ci politique duma ci wax loo xamante ni xaw ma ko gis nga keroog non non déglu may mun parce que boo nee da nga gonfler wala da nga exagérer Euh, dama koy damay dama koy rectifier gonflé wu ma exagéré wu ma. c'était conforme. mais c'était tes accusations mais c'était plus que euh, euh c'était plus que relative à une tentative d'assassinat. mais mais je était conforme mais à je, ce weesu na loolu may mun a nee naa la keroog bu ñu jotoon ci man àdduna tukki bu ñu jotoon ci man mën nañu jël suma bakkan wala ñu gaañ ma dañ doon xëcc buntu oto bi mais les images sont là. dañu dañ dañu dañ ma tiim dóor xeer ci vitre ba mu toj vitre bi dafa toj vitre avant bi waa léegi di di ci teg kàddu yoo xamante nii di ci teg kàddu yoo xamante nii rafetul xam nga doo juróoma moo tax waaye ki ma jur traumatisme la ci jëlee ak stress boo xamante nii xaw na ko yóbbu àllaaxira donc ñi nga xamante ni ñoo ko dund ak man nekkoon fa ak man jete pas seul j'étais avec des gens nee naa la suma chauffeur daf ci jëlee un traumatisme un traumatisme donc loolu loolu li gën a ah. li gën a li gën a li gën a am solo mooy loolu amul droit am ci politique violence amul droit am ci politique quelle que soit la divergence avec la personne mënuñu ko nangu xam nga balaa ngay émouvoir balaa ngay def conférence de presse di wax amul sénégalais bariwul sénégalais yu ñaawluwul woon ni loolu duruma la je suis ta grande sœur j'ai eu mal j'ai trouvé ça injuste te même bu ma la xamul woon sax nit mérité wul nga ñëw ci mbooloo ñu lay huer alors mais ñu teg loolu de côté je ne comprends pas après avoir vécu tout ça nga ne ta vie était en danger da nga àndal am nañ ci traumatisme ñu wootewaat nga demaat mais parce que je suis membre fondateur de F24 loolu mooy bu njëkk bi man bu ñu ma bëggee rey benn yoon ma rëcc du ma dellu. waaw mais xam nga. dara du ma ko xam nga doo yow nag te du ma du te doo man <laughs> le réalisme voudrait. waa mais xam nga te nga a dem foofu. waaw mais xam nga doo yow. du ma ah? yow te doo man non mais mais c'est de la cohérence. c'est de la logique humaine. waaw mais loolu da nga. la rey nga rëcc. boo demoon boo demoon génn fii ñu bëgg la rey nga xam nga j'ai beaucoup de respect pour yow naan c'est ma cohérence et logique <laughs> sa cohérence la ak logique mais li ma bëgg a préciser eh. foofu Sénégal man aw ma fi sens interdit c'est-à-dire que fu ma jàpp ne war naa fa teew dama fay teew lu ma jàpp ne war naa ko wax kenn mënuma ko teree wax wax naa leen du xuppkat yi du xëppkat yi mooy ñi nga xamante ni te loolu ñoo ngi ci sant suñu borom euh, euh, Maymuna amul xeetu corruption boo mën a xalaat lu dul proposé nañ ma ko xeetu corruption guerre boo mën a xalaat bu dul proposé nañ ma ko ñan ñoo ko proposé. mais ñi nga xamante ni amoon nañ intérêt ci li ma doon def bëgg ma wax lool ma waxal leen lu la neex. c'est-à-dire bon c'est-à-dire que ñun ay journalistes la nit ki nit am na nit koo xamante ni mën naa jàpp ne danga ko war a waxal tey da nga ko war a défendre wala da nga war a da nga war a. ah d'accord war a kii danga ko war a waxal lu ko neex wala soit nga musuma ko nangu musuma ko nangu te ñi may seetaan xam nañu ko nee naa la xëy naa bés ñu ne ma kaay jël terrain fii ci Ndakaaru. ma ne duma ko lal mukk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni duma ci dugg mais dama bëgg a wax ne luy tax ma def sama liggéey bii keroog bi may dugg politique dama ne lépp luy tax ma fàtte askanu Sénégal duma ko jege duma ko laal loolu mooy suma conviction bi gën a forte tey jii am na choix yu gënoon a yomb tey moo tax ma ne bu dee xëpp rek maanaam jox la ay privilèges ngir nga bàyyi askan wi j'ai refusé j'ai résisté je continue de résister bu dee xuppe tamit mooy ñi tax ne jàpp nañ ne comme li li ñu dund noonu obélisque jàpp nañ ne ma wala wax ma lu ma yuuxuma déjà loolu signe de faiblesse la yow kay bu dee d'accord ak man mooy li boroom xam-xam bi doon wax ne même bu fekkee d'accorduma ak yow ak yow dinaa xeex donte damay dee pour nga wax sa xalaat mais d'accorduñu l'imam Abdou Aziz si tudde woon l'éthique dans le désaccord radiallahu taala anhu même bu ñu d'accordul il y a une éthique à préserver mooy bàyyi ma ma wax suma xalaat mais d'accorduñu doo fi waxee sa xalaat di la di la yuuxu yemuñu ci ñu lay sànni xeer mais c'est extremement grave ci Sénégal bi ñuy dund nii donc loolu mënoo mënoo di xeex injustice man ni may xeexe injustice avec Macky Sall noonu lay xeexe injustice fu mën a jóge et nga delluwaat fa mais loolu déggoo ma ne man F24 laa bokk di xeex troisième mandat jàpp ne président Macky Sall warul prétendre à une troisième candidature warul am un troisième mandat mais suñu fu ñuy wootee loolu kay mais il est évident que dinaa dem ak bëgg ñu euh, réaffirmer wat les libertés publique mais loolu damay dem. Euh,